di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér tey nag seen émission bii di jotaayu xam-xam ñu ànd cee kilifa gu mag koo xam ne yaakaar naa kenn du leen ko présenté muy sëñ Alsaan Guèye di jàngkatu alxuraan bu mag borom ñaw xalima tamit macha allah nekk fii ci Touba ñu xam ko ci biir réew mi ak bitim réew mi macha allah tey nag moom lañ leen indil fii ci plateau bi ci seen émission bu mag bii di jotaayu xam-xam nee naa leen dee leen ñu topp rek di aimé tey partagé macha allah yu baax yi daal fii la nekk macha allah sëñ Alsaan maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi siyaar bu baax mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu Cheikh Amadul Bachir sunu mboroom yàggal nga fi lool te ànd ak wér noonu lañ koy ñaanee xalifa général yi fi teew yëpp di siyaar bu baax képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel jataayub xam-xam ñu ngi la ci siyaar bu baax te di la ndokkeel bu baax a baax bismillah jërëjëf sëñ Alsaan ci nuyoo bu am solo boobu ñoo ngi lay fay bu baax a baax mm. ah, sëñ Alsaan mu mel ni fii la ñuy dooree suñu waxtaan sëñ Alsaan mu mel ni ku la xam xam la ci jàngalekatu alxuraan mm-hmm. macha allah xam la tamit ci ñaan mm. ngay ñaan di seet ak yooyu di joxe ay garab sëñ Alsaan ñu bëggoon a xam rek jàngale alxuraan boobu nan nga koy boole ak ñaan gi ngay ñaan waaw loolu nag dañ ci sant suñu borom bu baax baax ndax it ñaar yu ñaar ñaar ñaar yu mën a ànd la xanaa kay day ñaar yoo xam ne ñu mën a ànd la boole ko metti lool ak tar lool ndax it lenn lu ci ne soo ko wutalee ab heure rek yaakaar naa benn mën naa bañ a e, joteeg moroomam nga xam ni nit ñi nga xamee ni yàlla dalaa boole ak ñoom nga war a faj seen aajo ak ñi nga xamee ni seeni wéeju dañ laa yaakaar jox yëkkati teg leen seen loxo ngir nga war a def ci ñoom xam-xam ñaar yooyu soo ko boole xam nga dara dara metti waye niñ koy doxale moy kenn ku ci ne rek dañ koy jox heuram bo xamanteni ci sa su joté rek duñ mëna jël ka ca dess suñu waré jàngale dañuy jàngale alquran suñu waré fajj aajo nit dañuy dañuy dañuy fajj seen aajo te dara du ci du ci du ci bok ak morom mm-hmm. non dal lañ koy euh, boole dana met lool nak ndax ku ne xam na ne jàngale mom yombut mm-hmm. ak it fajj aajo nit ki it yombut ndax nit ku nekk ak aajom ak ak nam tollu mm-hmm. waaw ok jërëjëf sëñ Alsaan ci tontu bu am solo boobu macha allah ah sëñ Alsaan ñu lay laajaat rek euh, seet gi ngay seet naka nga koy seete ak seet nan lan lay jariñ ci doomu aadama waaw xam nga seet moom dafa nekk loo xam ni dafa munta ñàkk ci doomu aadama bi mm-hmm. nit ki nga xamee ni yàlla da ko sàkk du ñàkk am loo xamante ne si da koy umpale ci boppam nit ki nag lam umpale ci boppam la bëgg ku ko ko wax moo tax muy seetlu ji seet nag mu nekk loo xam ne lu fi yàgg la lool mag ñi daa ko jëfandikoo mag ñi ko daa jëfandikoo nag lu ci ëpp maanaam euh, tuddoon ci wàllum listixaara nga xam ne listixaar ñu bari moom lañ min ci mag ñi seet nag euh, nit ku ne da ko war di def fu mu toll euh, li ñu war a seet nag bari na lool ndax nit ku ci ne nit warta dugg ci mbenn mbir te seetu ko nit balaa sañc palaas war na koo set ndax place ba jig na am jigu ko dëgg la waral nga gis nit ko xamanteni ci si nekkon ci beurep place bay dox ba mm-hmm. yag mu sanc demat fenen mbir ma daanu mm-hmm. su fekkon nak set nako ko lepp man nako jo baña dal deug la Lele da ngay gis ko xamanteni ci si it mm-hmm. da koy day dogal mu am soxna sumi beug ta jamono bi mu koy beug aw wërsëgam yokon na lol mu takko ko aw wërsëgam wàññeeku to loolu suko ko man nako na baña dal deug la dal bi ci desit nit lelek mu japp aw yoon wo xamni ni du yoon wu gën mu dem sun borom dik kum dogalam amaana suko seton mes mees na ko caa wan lo xamanteni ci ni euh, moy moy moy moy fank lolé ko dal ci yoon wa te it mag ñi daan wax ni xaar bis bu rafet euh, xaar xaar tukki dal jar jar na xaar bis bu rafet ba fii ba déwén dal maanaam comme niñ ko niñ ko magni da daa daa non dal lañ lañ xam ci set liñ ci war def dal bari ndax nit ku ne señ señ ci dugg ci melni mbir te nit sanc dugg ci say te seetu ko nit sanc sañc kër te seetu ko ndax léeg-léeg nga sanc bërëb boo xamante ne si bërëbub jinne lay doon te bis boo ko seetee na nga xam ne lii kër bërëbub jàmbor la léegi nag ni ngay def mooy nan ngay def ba ba ña fa nekk man laa mën laa xajal kon seet noonu noonu lañ koy defee maanaam nit ku nekk ak ak na muy seetee ñun nag li ñuy seetee ku ne xam na ko ñun suñu dara génn alquranul karim ndax euh, lépp daa nekk ci alquran fi on si faaw li naas ndax alquran moom day day day saafara lépp moo tax ñun wax dëgg yàlla lépp lu ñuy seet rek ci alxuraan lañ koy seetee ku ne nag dana seet ci ramli ñii danañ seet ramli mooy ramli tomb yi ñii danañ seet ci ndox ñii danañ seet ci ci ci ci kurus ñi danañ seet ci lépp ci seet googu yow ci ban façon seet ngay seet waaw man nag seet gi may seet mhm. euh, man damay listixaar laay def danga may jox sa tur mhm. ak sa tur wéyjur ak sa date maanaam année bi nga judd mhm. soo ma joxee loolu lépp loo xamante dalaa umpale woon ci sa bopp ma wax la ko ci kàttanu suñu bopp te lépp lu la ci waxi du deñ te seet nag du ma ci bëgg di wax sax ndax ñu ñi ci xam dafa bari ndax léeg man li may seete léeg ma seet ba wax ci nit loo xamante man sax damay mujj rus yàlla xam na ko mhm. ndax bu yàggul rek am na ko ñëw sama kër koo xam ne yàlla xam ne dama koo seetal ba ba muy tuur xéwal ci néeg bi mhm. bi ma ko questionné nag mënu maa tontu mais après laa ko wax mu ne man li nga ma wax dama ko musta dégg ci àdduna ndax koo xamante ne si mel na yéen a dëkk te tey nga koy door a gis loolu mhm. loolu day daa daa kéemaane dëgg moo tax euh, seet noonu la demee incha allah dëgg la macha allah seigne amna amna solo ci leral gi nga leral ci walum set euh, amna solo trop macha allah ah, xamna gaay mom yi bëgg nañ ay set ak yu demee nonu gaay lay baye xel. kon mbokk yi ñu leen rek yéen a ngi ànd ak seen site bu mag bi di DSTV jeng sala TV macha allah neena len fi la lepp di leere seigne alsan ñu ngi lay jaajëfal ci tontu bu am solo bo, ah, ah, di la laaj tamit euh, seigne alsan yow mom ban ane nga dugg ci ñaan gi. wala ñaan gi moom dangaa tëb tëb dugg ci wala dangaa ngaa jàngi alxuraan ba wàcc soo koy commencé ñaan gi. waaw xam nga euh, bi ci jiitu mooy. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax ni. nit moom su nekkee ca la mu war a nekk rek wàcc na. loolu soo ko déggee da ngay xam ne ñaari anam da cee am. anam bi ci njëkk mooy euh, dañ koo jàng ba ba xam ko bu wér. ndax euh, dañoo jàng ci tasawudu subban Sëñ Tuubaa wax ni. yaa maxsara subbaani in xiftum xajal faqaddimu taallumal xalal amal daa wax ni yow cam si wala yow nit ki lépp loo bañ gàcce rek lépp lay dugg rek te ragal ca gàcce na nga ca jiital ak xam moo tax ñun avant ñu ciy dugg it jàng nañ ko ba xam ko ginnaaw li nga xamee ni nag suñuy wayjur nekkoon nañ ci suñu wayjur woowu it wayjuram nekkoon ci nga xam ne lu ñuy doon la ba ci ba ci ba ci ñun mm-hmm. waaye ñun li ci ëpp solo mooy li ñu ci ëppal solo mooy li nga xamee ne ñun ñoo ko sonnal ci suñu bopp ñun ñoo ñoo ñoo ñoo jàng xam-xam bi gëstu ko mm-hmm. biñu jàngee loolu it dañoo jàngaat euh, Sëñ Tuubaa xamal ni waman taallama mu mm-hmm. muallimin muhaqqihin fa innahu su waxami daa wax ni nit ki euh, suy sàkku xam-xam day dem ci ki nga xamee ni fa la war a sàkkoo xam-xam su demee ci ki nga xam ne wóoru faa sàkku xam-xam ne kooku boroomu njumte la moo tax ñun bi ñuy sàkk xam-xam dañ koo sàkku xam-xam ci sàkku xam ju wér am na loo xamante it may suñu borom lay doon ndax ñun suñ suñ suñ nattee kañ lañ bëgg dugg ci ñaan dana sonn ndax diir bi nga xamee ne ñu ngi ci daara ji lépp wax dëgg yàlla ñu ngi doon ñi ngi doon ñaan ndax man mënu ma koo takk wax dëgg yàlla ndax bi may tari rek am na am na am na ñooñ dañ ma daa xaar ci mbaar mi ba ma wàcc leen a jox lim la war a liggéey xam nga ni kon loolu yàgg na munoo munoo takk dëgg-dëgg kii bi waaye li ci gën am solo am na lool su dañ ko doon ci suñuy wéyjur am na loolu it dañ ko gëstu gëstu gu wér ba ba euh, ba suñ borom tawféex lañu ci ñu door cee nekk euh, di ci di ci di faj aajo nit ki te suñ borom mi ngi ci defa sutura bu baax a baax incha allah macha allah sëñ Alsaan tontu boobu leer na nañ am na solo ah, macha allah ah, sëñ Alsaan ba léegi ñuy ñëw ak yow rek ci faj yi ñuy yi ñuy faral di faj muy wàllum nopp wàllum nopp dama ciy dégg sa tur lu baree bari ma lay laaj wàllum nopp googu yow naka nga koy defee. waaw nopp nag ak kin koy defal ak kañ koy def. Mm-hmm. ndax it euh, asrar li ci gën a jafe. Mm-hmm. man mën naa wax ni nopp la. Mm-hmm. ndax doomu aadama. suñu borom da ko fonk fonk goo xam ni euh, du nangu nit nit tëb tëb rek jàpp ko ci noonu. loola moom li muy am lu néew a néew la. moo tax ñi ciy wax nag bari nañ lool waaye ñu ko mën it ñëw nañ lool mm-hmm. noom nag ñun suñu borom defal nañ ci tawféex ju yaatoo yaatu euh, ndax am na xeet ndaw yu nuy liggéey yoo xam ne mm-hmm. yenn yi mm-hmm. dan la koy jox nga jëfandikoo ko man nag nob bi ma dut joxe tama tama tama tama ci euh, existé lu bari mooy nob gi nga xam nit ki da koy lekk loolu lu lu dangereux ndax nob waxtu wu fanaanee rek poson lay doon nopp waxtu wu fanaanee rek daanaka poson lay doon léegi da nga gis góor ñu bari ñoo xamante ne si dañuy amee feebar biir bi métti hmm. dañuy dem hôpital dañuy dañuy mën nañoo def façon rajo bu ne mën nañoo scanner def rajo lu ne mais duñ mës a gis feebar biir bi te fekk na nooba def loolu oh. man nag nopp gi may gi may may gi may liggéey mën naa laa noobal ba noppi hmm. su ma la da jox ni la jëfandikoo lenn lay doon muy li ma lay jox ni la def ko sa kanam wala raxasee ko sa kanam nga séegi sa borom kër hmm. loola moom nopp googu laa xam ne moom insha allahu rabbi képp ku ma ko defal ku ne suñu bu mu doon ci jox résultat ndax it li la mën a assuréel mooy nopp googu su ma la ko joxee nga raxasoo ko sa sa kanam séeg sa borom kër mu yoroon ñeenti soxna yor benn téléphone nga xam ne ki ci gënoon nopp la koy jox yàlla xam ne su ma defee nopp gi yow la koy jox est-ce que ah su ma la joxee nopp yow la koy jox mhm. am na fese benn façon nopp gu ñuy liggéey it boo xamante si dañ koy liggéey bu noppi dëgg la moom mbaam lañ koy wëggee mbaam sa yi lañ koy lañ koy wëggee mhm. moom it gu doy war la goo xamante ne si secret bu wér a wér la mhm. am na yu ñuy liggéey it yoo xamante ne si dañ koy liggéey ci yàpp su fekkee jigéen mm-hmm. ñu jox ko xa ñu jox xaj bu góor su fekkee góor ñu jox ko xaj bu jigéen mm-hmm. loolu bis boo ko defee ni xaj di toppee boromam te te te te te déggalee la ko mm-hmm. soo ko defee sa soxna noon noonu la lay déggalee soo ko defee sa borom kërit it noonu la lay noonu la lay déggalee insha allahu rabbi moo tax noob léeg-léeg duñ ci duñ ci duñ ci bëgg di di yaatal lool lool lool lool waaw ah, macha allah tontu googu am na solo xam naa nit ñaa ngi lay dégg ñoo ngi leen di rappelé waat rek ni yéen a ngi bàyyi xel seen site bu mag bii di DSTV macha allah ah sëñ Alsaan bu loolu jàllee wàllum noob gi dañuy ñëw ci wàllum ngóora wàllum ngóora moom yaakaar naa macha allah sëñ a ah, sëñ sëñ Alsaan wàllum ngóora moom. waaw yan xeet nga ci yor. waaw wàllum wàllu wàllum ngóora moom. Mhm. comme ni ngeen ko waxee rek ngóora dafa dafa dafa dafa doy war moom it. Mhm. ndax it da nga gis ko koo xam ni. mi ngi koy liggéey waaye comme ni ma la ko waxee rek man nit su ma koy defal wàllum ngóora da il faut mu jot ma téléphone du ma euh, jël ay garab yoo xamante ne si da nga koy ñëw nit nit ñëw rek nga jox ko ko noonu mu dem mhm. man liggéeyu noonu ndax doomu aadama yi tolluwun dégg mhm. kenn ku ci ne am na garab goo xamante ne moom nga ko war a jox mm. ba ci bi ci desit am na ñoo bul euh, nit wër nangu koo xamante ne si dalay jox garabu ngóora tey tey tey tey tey tey mu satisfaire tey mm. loola moom képp ku wàcc def ku ne yaa ngi ci musiba ndax nit ki waxtu woo xamante dafa néew kàttan rek tëbu tëb rek néew kàttan maam dangay ngay da ngay gis ni tey jii su doon man su doon man fukk day day man ñeent day day man juróom-ñaar ba ci mu ñëw mu man juróom ba ci yàgg mu ñëw juróom benn la noonu la def moo tax nit ki bu kenn nangu ñu tëb tëb rek jox la garab goo xamante ne si nii dangay ngay jekki-jekki rek nan ko mu satisfaire la déedéet mm-hmm. ni nga ciy def mooy da nga ciy gis par résultat maanaam da nga da nga da koy da nga koy jël par ndànk-ndànk maanaam di ko jël par ndànk nga xam ne tey ji da ngay jël garab gi jëlaat garab gi jëlaat garab ba keroog suñu borom jox la loo xamante si moom nga ëpp loo li nga yoroon mm-hmm. moo tax ngóor a daal ni ma gis nit ñi di ko liggéeyee moom moom baaxut ndax it lim la ko mën a joxee tey tey tey tey tey moom noonu la la ko mën a xañee ci kanam mm-hmm. ndax nit ki waxtu wu tëlee rek lu ci ëpp deretam mooy fatt mm-hmm. léegi su deret ji fattee nag da nga koy jox loo xamante da koy sekkaat maanaam mu di ko diko di ba kërok mi am katan katan gu deug gu deugër këcc maam nga xam day am puissance su su fekké day def rapport mais su fekké dang ko jox tay tay tay mu defé tay loolu man kuma ko jox dana xam li nga joxé baaxut ndax su fekké garab yi nga xamé ni médecin dañ koy joxé ci yenn ci yenn ki war nga war nga man a xam ne yooyu sax daanaka taxuta taxuta taxut taxuta baxé non ndax li ngay li ngay jëf tay gis ko tay loola moom wax deug yalla su fekké walum ngora day xawa day xawa day xawa a xorom tuuti nit ki waxtu wu la waxtu wu rek maam da nga ko jox garab goo xamante si da dana ko mën a satisfaire mhm. waaye doo ko jox tey rek mu jox la ko tey loolu moom musiba la wax dëgg la sëñ Alsaan tontu boobu am na solo macha allah ah, tontu boobu am na solo macha allah ah, beneen bi mooy wàllum jigéen ju taxaw mel ni sëñ Alsaan wàllum jigéen ju taxaw di ci faral di ñaan waaw euh, jigéen gu taxaw mhm. loola balaa ñu cee ñaan dañuy xool lan moo ko tax a taxaw mhm. ndax léeg-léeg day am ñaari tawar yoo xam ni ku góor ki ak ku jigéen ki ñoom ñooy bokk tawat ji léeg-léeg nag ku góor ki mooy tawat léeg-léeg ku jigéen ki mooy tawat loolu lépp nag faaw nga consulter leen ñoom ñaar ba noppi door a door a door a xam nan nga koy fajee te it am na ñoo am na jigéen ñoo xam ni rab dana leen téye ba duñ am doom am na jigéen ñoo xam ne xalaa kulli xal ñoom moom duñ mën a am doom maam loolu suñ borom a ko def wala kon boog waxtu wu ñuy am doom dana metti metti woo xamante ne si seenu ñàkk bakkan dana ca xaj mhm. waaw waaye su fekkee jigéen gu taxaw nag rab dana ko def léegi da gis euh, jigéen ñoo xam ni maanaam fi ñu war a juree la la la rab di toog wala wa ilaa waxtu wu sëy borom kër ba noppi rek su fa bàyyam ndox ndox mooma day day day génnaat loolu rab da koy def waaye lépp lu mu ci manti doon danañ ko seet suñ ko seetare ba xam li mu doon nag mhm. ci la ñu loo xamante ne si su fekkee yàgg sa borom kër yéen a koy jëfandikoo soit yow mi nga xamee ni góor gi yaa feebar yaa ko jëfandikoo wala jigéen gi xame xamee ni moo tawat ba mënta am doom mhm. waaye lu mu ci manti doon nag ñun am nañ yaqin gu wér ni suñ ci suñ ci defee ay ñaan suñ bam dañ dañ defal li mu bëgg insha allah rabbi moo tax jigéen gu taxaw dañuy xool lan moo ko tax a taxaw ci góor gi la wala ci jigéen gi wala bokk ci ñoom ñaar ñëpp la insha rabbi dëgg la sëñ euh, alsaan macha allah tontu bi am na solo leer na euh, sëñ alsan ba léegi mu mel ni kër yi léegi lu baree bari dañuy jaxasoo ñii dañ leen di dëddale ak yeneen ak yeneen yoo xam ak jaxasoo lay indi ci biir kër yi euh, loolu tamit sëñ alsan naka ngay def ak ñooñu waaw su fekkee ñooñu dañ leen di boole maanaam su fekkee ñooñu maanaam jubóole nga leen def ñoom ñëpp ñu nekk benn ndax it euh, kër wax dëgg yàlla kër goo xamante ne si matul lu toll ñaar fukki nit loola wax dëgg yàlla kër kër gu war a mën a neex la waaye ñun yor nañ ci bagage yu ñuy liggéey yoo xamante ne si ni incha allahu rabbi suñ ko am na lu ñuy liggéey ba ba ba ba maanaam yaatal genn miim goo xamante ne si mm-hmm. foofa kun fa dugal ñoom ñëpp ñëpp benn la ñu doon mm-hmm. ñoom ñëpp benn la ñu doon man nag duma la jox dara nan la da koy def ca togg ka nga ñëpp di ko lekk ndax waxtu woo dugalee ñoom ñëpp ci biir togg gi ngir ñëpp lekk ko dana am koo xamante si nekku fi te boobaa du bo du lekk ca lekk ga waaw kon boobaa du lekk ca lekk ga moo tax dañ koy liggéeyal loo xamante ne si dañ koy suul fuy tooy mm-hmm. incha allahu bi ñoom ñëpp kër ga benn la ñuy doon ndax kër yu bari léeg-léeg ñenn ñi njëkk yee koy njëkk yee koy tas ñi yenn goro yu yu térépili ñoo koy tas mm. lenn lu ci ne ñoom ñoom loolu ñoo doon waaye lu mu ci manti doon ñoom ñëpp mën leen a boole ñoom ñëpp ñu doon benn kenn ku ne sa morom moo koy gënal sa bopp mm. incha allah waaye nag duñ jox kenn naan ko yaa da ngay jëf ni mu lekk ndax waxtu boo ko defee sa togg am na koo xamante ne sii ni yàlla mën naa dogal du ca bokk mm-hmm. du bokk ci biir ci ci biir lekk googu te it su fekkee bokku ca it moom du ca bokk su kii su ñuy jëmee ne ñu jëm ñii lañ jëm mm-hmm. moo tax nañ koy liggéeyee dañ koy liggéeyee noo xamante ne si ci ci dañ koy dañuy ubbi la ñu ubbi dugal ko ca sul ko fuy tooy ñoom ñëpp insha allah bi benn la ñuy doon ci kàttan suñu borom ah, loolu am na solo macha allah waaw ñoo ngi ciy ziaraat bu baax a baax jaxat si la di ziar Dieng Saala borom kër gi macha allah di ko jaajëfal bu baax a baax moom tamit di ziar waa tali bu bees ñëpp ñoo ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay lu bëree bari ku ci mel ni bàjjen Kuma Mbàkke ñoo ngi koy ziar bu baax soxna Ndey Lay macha allah ñoo ngi koy ziare bu baax ñoom tamit ñu ngi bàyyi xel DSTV di ziar bu baax képp kuy bàyyi xel DSTV rek di leen wax ne affaire bi fii la macha allah di leen topp rek incha allah waa sëñ Alsaan mu mel ni maa ngi gis ay garab fii ci kaw taawul bi nga indaale ko ay lu mel ni ay sase sase yi sax moom dafa taaru macha allah ñu lay laaj nag sase bi bu zone bi moom waaw su fekkee sase bi nga xam moom laa mhm. Mom, dafa nek loo xam ni dafa bax lol ci li ñuy bëgg lim te olof njaay day wax ni fagaru mo gën faju lola nak wax ju wër la ndax nit ki ba ba dara dal ko rek muy door muy dem dem ni day faju ji mom nak mom juróom-ñaari garab lañ ko liggéeyee liggéey mbind di liggéey bu tar bu metti lool waye it wax deug yalla faj do faj faj Euh, soxlay doomu aadama yi jar na lu ëpp loolu ñun waaw ba tax na bii képp koo xamante ne si nii maanaam yàlla daa dogal cat sonal ko nga xam ne moo sonal ñëpp nga xam ne cat moom dañuy wax su su reyut semmal bii da bii képp ku koy jëfandikoo fekkee cat moom danga koy dégg rek waaye moom doo ko gis fenn da koy dégg rek mais doo ko gis fenn benn bi ci des képp koo xamante ne si dafa dafa dafa dafa tëju maanaam koo xamante si rab moo ko yàqal lu bari. Mm-hmm. waxuma la nag kuy daanu rab koo xamante rab da ko yàqal wala sax rab tee koo am jëkkër. Mm-hmm. incha allah rabbi su ko jëlee suñu borom mën na koo dimbali bu baax a baax a baax. Mm-hmm. benn bi ci des it dalay dalay dalay dalay protéger maanaam tey jii lépp lu mu fekk sa yaram dana ko dindi. lu mu fekk sa yaram dana ko dindi te dana la aar ba dara dootu dugg te yaakaar naa kon loolu jal na lu ne. ndax doomu aadama yi ko fexe ba mucc ci ñoom rek. looyut danga ci jot. ku fexe ba mucc ci doomu aadama yi fexe ba mucc ci rab yi ak seytaane yi ndax ñoom ñoo nekk ci àdduna mhm. nit saa su gàllankoore ginnaaw dogal suñu borom génnul ñeent yooyu mhm. génnut làmmine nit wala bëtu nit wala rab mhm. wala seytaane yooyu génn ko waaye incha allahu rabbi képp kum ci mën mën a doon soo ko jëfandikoo suñu borom doon musal ci loolu lépp waxuma nag kuy daanu rab moom man su may wax damay wax lu leer man kuy képp koo xamante day daan sax man duma la faj far mm. waaw man mom wala bok lu mënta ñak la nek kuma ku ma jege waaye su fekkee walum ana yow ana man rek wax dëgg yalla mom man duma duma ñaan ci duma duma ñaan ci rap su fekkee bi rek non lay doon inshallah rabbi mhm, macha allah sëñ Alsaan amna solo li nga wax ci bii moom macha allah amna solo lool hmm. wa mu melni gis na fi beneen sase tamit benen bi mom lan lay fajj waaw su fekkee bi nak mom mom tour wi yakana ñu bari min nañ ko ci ñun mom mo lañu xabum wax xabum koom xabum ah, koom boobu nag sëñ Alsaan moom macha allah war nga ma cee wutal sax. incha allahu rabbi xabum koom maam ci gàttal mooy loo xamante day yokk wërsëg. Mhm. di ubbi wërsëg moom la mag ñi daa wax xabum koom. xabum koom da nga daa gis mag ñi ñu ci baree bare bare ñu ñu ci néew ñoo ci daa dem di liggéey. Mhm. waaye dana yor seen bagage yoo xamante fii ñu ngi koy laal rek seen mbir day dox. Mhm. lii nag euh, moom juróom-ñaari sunguf lañ ko liggéeyee. waaye ba tey bokkut bii. ndax mën nga ñoo leeral juróom-ñaari sunguf yooyu ban ak ban la sëñ waaw loola moom du lu ñuy mën ndax euh, daa am góor gu ma doon euh, jàngal xam-xam ni ma ni ma muy lu xorom nag tey te wér lool mun ma bind la sekkere mhm. ma bind sekkere mun ma bind la sàkkara mhm. ni nga denc sa sekkere sa sàkkara si nan nga war a denc sekkere bi moo tax loolu dañ koy dañ koy denc mhm. man ni ko waa ma sàkk danañ ko génne mun waa soo ko génne farata tax kon loolu suñ koy génne farata doo ngay tax muy lu xorom nag waaye su fekkee bii nag mhm. moom juróom-ñaari sunguf la bii mhm. liggéey bii moo dañuy wax ni mooy gën a métti benn liggéey bi ci des mhm. ndax su fekkee bii ñu ngi ko liggéeyee juróom-ñaari sunguf juróom-ñaari suufi teen juróom-ñaari suufi xorondom ak it juróom yoo xamante ne si benn bokku ci sa morom juróom-ñaari suufi marché juróom-ñaari suufi juma loolu lépp lañ koy mélangé tey sunguf si li tax mu doy waar mooy maanaam sooy wut juróom-ñaari sunguf yooyu bis bu ci ne benn sunguf dong nga mën a wut nga xam ne sept jours yoo xamante chaque jour da nga dem ci àll bi wutal ko sa bopp ñëw defaral ko sa bopp mhm. waaye képp koo xamante da tëju ak loolu mënti tëj insha allah rek soo ko sangoo suñu boobu dana ubbi mhm. te li gën a yéeme mooy da am bayra boo xamante moom maa day tali te bayra bu ànd kaaraange lay doon ndax mhm. bayra moom su ànd kaaraange rek mën naa lor borom waaye lu mën a sauf mu sauf nit ñep su ko dé jëfëndiko insha allah rabbi dana neex ñep ci carte sun borom insha allah rabbi deug la ah sha allah sëñ san, kon sa carte gu mujju lan la dafa melni ni waa Rési ñi ngi signalé émission ba nga bëgg a jeex euh, ñu bàyyi la nga taguto waaw sun carte yu mujju mhm. comme niñ ko waxé rek manam képp ko sa aaji natu fa ñun nak yalla na buñu jëflante. waaw ñun mom ku ñu min min nañu ci loolu waaye loolu dañ ci sant suñu borom bu baax a baax ndax it léeg-léeg doomu aadama mën naa am yaakaar ci yow ba noppi te yaakaaram du sotti waaye ñun kenn du yaakaar ci ñun suñu yaakaar di tas ndax ñaan googu ñaan suñu borom suñu borom sax sur bi ñu ci defal tawféex ndax léeg-léeg sax nit dana dana waxtaan ak yow wala mu waxaaleeg yow li ma ko nit def bari na mm-hmm. waxaaleeg man bañ juboo mu dugalal ma xaalis ba nopp ni ma sëñ bi est-ce dama envoyé waat xaalis bi ndax damaa am soxla nangam ma daa ko transfert waat waaye man ci saas danaa xam ne ñaan nga ma ñaanal suñu borom mooy sotti léegi nit am yéene jox la ko ba nga xam ne kii am na yéene jox la waaye xaalisam day si ci yow ndax ndax ndax ñaan nga ñaan suñu borom day day day day sotti loolu mooy sunu kàddu yi ñu mujj insha allah rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu macha allah macha allah sëñ Alsaan kontaan nañ lool macha allah émission bi wax dëgg yàlla li nga soxla li nga bëgg daal sa ñaan gi yaa ko xam yàlla na la ko suñ borom defal ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ndax lii rek yombut macha allah soxla la déplacé la nga ñëw ba fii ci euh, DSTV wax dëgg yàlla loolu yombul ñoo ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal personnelu DSTV yëpp Dieng Saala ñoo ngi koy bégee lu bëree bëree bari mooy borom kër gi macha allah ñoo ngi koy bégee lu bari bégee njaxat bégee suñu caméraman bi Matar ñoo ngi koy bégee lu bëree bari moom macha allah moom tamit ci caméra bi di béggee waa tali bu bees ñëpp soxna fàjjew ñoo ngi koy béggee lu bari moom tamit euh, soxna mbenn bajaan sama séeri neex ceeb maa ngi koy béggee di béggee waa kër gi yëpp kon ñoo ngi leen di jox dig daje ci beneen émission macha allah di leen wax ni fii rekk la dee leen aimé tey partagé jaa ngeen jëf